musuñu gëm ndogalu yàlla ndogalu yàlla ñoom musuñu koo gëm wala dañoo léegi ndogalu yàlla dafa am benn moment boo koy gëm am benn moment doo ko gëm wala loolu la moom loolu lañu bëgg am def ci réew mi El Malick Ndiaye dafa war a démissionner bu fekkee gor la deretu gor la ñaari goro mu judd ñetteel leen day démissionner du xaar ay Ousmane Sonko état du ay xarit ak mag ay rakk amul loolu la république c'est la république l'homme qu'il la place qu'il amul leneen dafa war a démissionner ba pare ni ma ngi jégulu sénégalais yi ndax ba ma fi toogee ba tey yaa trop de sax ma ngi dégg leen ngeen joxe benn xibaar xëy na peut être da ngeen ko gën a vérifier mhm. ñun ni côté ngaay dafa am benn accident mini bis ñëpp dee nañ fu El Malick Ndiaye nekkoon ba ñooñu dee ah ginnaaw moom loolu la adressé woon Mansour Faye moo tax moo koy dellowaat moom El Malick Ndiaye fan la nekkoon ba ñooñu dee mënu woon a kar bis ñu téye la ñu bañ a dee accident bañ am El Ndiaye fan la nekkoon ba avion yi saaraan musul am senegal El Malick Ndiaye fan la nekkon ñaata nit ñoy dé ci talib par jour kon gis nga am rew boko bëggé jité wala nga bëgg fa tekki dara bul fenn pas wax dëgg parce que nak bo nekké ci ku gi di wax dëgg ba ak ci pouvoir bi même bu la réalité dalé di nga mëna jakkalu aw askan wax leen dëgg mais bu féké da ngay fenn di fenn boy nalaw di fenn boy dox di fenn boy lek di fenn bo taxawé ak askan bañ dox la pouvoir bi to man dara nañ ko rafetal rek deug la parce que xam nga comme leg day fen da ngay da ngay manam ay fen mom lañu yobon kasso ta mm-hmm. man dama bëgg dem dem bu gaaw ah parce que xam nga lutax man mom ben affaire duma saga mukk président de la république parce que xam naa luy institution mm-hmm. mais képp ku def defu politique mo tontu la ci tontu politique deug la wu ma kenn dama ne ñom wa pastef dañuy lek di fen di dox di fen di nalaw di fen ñu dem ba ak ci pouvoir ba nga continuer di fen pour yor nguur gi du fi soti nena fi sa suñu xeye fen ma tek ataya ma tour ataya ja dajje seen fen tegaat sama d'accord dëgg la nañu nañu gën a rafetal waaw baax na mais daal mais daal El mal Ndiaye moom daa war a démissionné moom moom moom daa war a démissionné dara ñu koy wax deuxièmement nag accident yi yenn comportement yi ci tali bi nañ ko changé te xam permis ñett la poids léger poids lourd transport kon soo demee ba am transport en commun ñu responsabilité nga war a yor lu mat 40 nangam bakken bala nga dugg ci oto bi na nga xam ñi nga yab mu mel ni say doom lañu nga war a yor seen responsabilité yëpp ginnaaw yàlla ak yenent bi mhm. mii faat nga xam ne suñ boroom ku mu neex jëlale fi lu mu lu am ci ndogalam la nga ñaan ko yéeg ci oto bi te dawal dawal bu yar bu am ay teggin mhm. foo ak fu la kàmb bettee nga mën koo dévier ndànk mhm. waaye yor oto ñii ay Volvo la ñuy jël ñii dañoo réew ñii xamuñu seen bopp dañuy yor ay nit mel ni ku yor ay xar. te loolu maa ngi ko adressé parce que ñu ngi jëm màggal Touba. te chauffeur yi gën a daw léppay dawal. kon nañu ànd ak yar ànd ak ay teggin ci tali bi di yóbbu nit ñi ci jàmm dañ indi ci jàmm lu am nag ñu xam ne ndogalu yàlla la waaye El Malick Ndiaye da ngaa war a démissionner. <laughs> ñu euh, ñëwaat Fatim Ndiaye ba tey euh, ci euh, cette question là accident yi nga xamante ne ni ñu ngi koy nemmeeku comme niñ ko waxee loxol suñu borom mi ngi ci waaye des fois tamit ci facteurs yi nga xamante ne ni daf koy indi dañu ci gis li nga xamante ne nii moom moo di yenn comportement yi nga xamante ne ni ñu nekk ci tali bi dañu koy faral di def te méngoowul ak li nga xamante ne ni moom la ñuy santaane. waaw an accident yi je crois que bii dafay mekk rek euh, beneen ci multiple bi yi nga xamante ne ñu ngi koy gis saa ne à chaque fois rek ci li ñuy nekk rek ci la ñuy nekkaat ba tey di leen jaala di masawu seeni mbokk ba pare di ko naqarlu te mu mel ni bu ñu ndaxarloo ba noppi rek bu subaa beneen bu gën a am bu ne rek nga nga nga daraat sa gémmiñ il faut que encore une fois gis nga ni mu amee ci accident yi yeneen amee ci yeneen ak yeneen domaine boo mën di gis la même chose la la la la première des choses mooy indiscipline da cee bokk loolu quoi qu'on puisse dire euh, puisse dire si la bokk ndax am na fan yële ñu ngi wane benn vidéo ñaari bus yuy jàpp ci euh, autoroute bi ne dañuy péage bi ne dañuy dañuy course kenn mënul bàyyi moroomam euh, di def yenn yi ba ñaari apprenti yi sax kii day daw balee wax moom kee teg ko tànk ñu dem loolu c'est de l'indiscipline mhm. dafa am yoo xamante ne mën nga koo def fu ne waaye ci kaw tali war nga ko faa mën a moytu te loolu moom mooy premier des chose loolu dafay indiwaat rek ci permis yi ni ñu koy amee ak ni ñu koy joxee mhm. ah ñu tegaat beneen boo xamante ne tey képp koo xam nga def nga benn infraction ñu ñu ñu ñu ñu wàññi benn point ci say mbir ba bés xam nga nit boo ko ne da ngay fay lii sax mën na chaque jour parce am na ñoo xam ne moom am na ñàkk jom gi day ni ñu baal ma ci kàddu gi boo leen faylooyee tamit bu subaa dañuy demaat fay da leen koy jaral ah mhm. seeni bêtise mënul ñàkk ah faaw faaw koy def rek di ñëw di fay waaye bu la leeree ni ki dañ la tegal ci dix point yoo xamante ne bés boo ko atteindre atteindre sa permis perte nga ko yow mënatoo am permis ci àdduna bu boobaa lool moo mën a wàññi indiscipline bi ci nekk beneen bi ci des mooy oto yi nga xamante ne moom la ñuy bàyyi ñuy daw parce que des fois nga dajeeg oto boo xamante ne su ma jëlee exemple cette place ci garage di nga si gis cette place boo xamante ne boo moytuwul booy toog foo toog weñ jam la te ba tey ma ngay daw teggiwuñ ko ci tali bi mm-hmm. yooyu aussi nañ ci bàyyi xel bu yi la même chose parce que la plupart njaganjaay yi ñuy gis ñuy accidenté xoolal ni muy melkee si donc yooyu yëpp buñ ko boolee mm-hmm. négligence su autorité yi si la bokk parce que oto yi war nañoo def visite ñoom war nañoo am ay moyens yoo xamante ne dinañ ko defaraat de telle sorte que nit mënul def visite boo xamante ne dañ koy truffé ndax da nga fiy gis ku yor auto tey Dakar dem defee ji visite Touba wala cees mm. pour lan donc loolu seen responsabilité nañu ñoom ay ay foofu la ñu tolloog yooyu non non parce que à chaque fois dañu war a améliorer donc amélioration daf ci mm. bokk waaye indiscipline aussi daf ko jur léegi nag pour daaneel rek a ana ci accident yi li liñ ciy mën mooy ñaanale chaque jour la même chose dañuy mm. def ah, mais Tom su ma ko déggee muy yuuxu doo ko mën a bañ a wax dara li ñu jógee wax ci jakartamaan yi wax ko ci marchand ambulant yi wax ko ci ñeneen ak ñeneen la accident yi mhm. parce que accident wu cyclo bi on se rappelle tous bi mu amee El Malick mi nekk xam nga yàlla lu muy def rek amaana da koy seetlu di ko tracé tey li may wax ni amaana mag ma koy dencal fenn di ma wan ni suba dana ñëw moom tamit fekk si ma El Malick moo fi njëkk bokkoon na ci njëkk a génn def ci post Facebook am di wax ni ñuy traité ki fi nekkoon ministre boobu wax bu ne wax nañ ko ko ba di réclamer justice ba ne dañuy def sax ay ay seen signature yooyu noonu pétition su ko defee pour que ñu buñ ko bu démissionné wul tam ñu dàq ko mais pourtant moment boobu ñu koy wax ñoom fàtte woon ne yàlla moo existé yàlla mooy indi accident wala yàlla mooy rey nit sax laa la wax te bés bu ne tey la sa bakkan di jeex mu ñoom fàtte woon nañ lool mais moment bii nga xamante ne ne moom moo doon wax lool tey moo nekk ci rond tey boo ko yëkkatee ñu ne la yàllaa ko dogal dafa waroon dee ñoom bi ñuy wax lool dañoo fàtte woon loolu moo tax am na question yoo xam ne kenn du ko kenn du ko politiser si foofu laa doon ñëw justement bi dañoo dem ci réew mi foo xamante ne lépp lu mën di am politiser nañ ko sa baay bii xëy di joxe dépense sax ci kër gi su manqué cent franc dañ koy politiser di la tam benn Fatim Ndiaye tugg fi fee ñëw ci aana ne ko eh sa papa yor na xaalis waaye li nga farul ak Sonko loolu moo tax joxu leen mu mat lépp la ñu jël politiser ko te yooyu la ñu war a bàyyi ci réew mi gis nga lii sante lii ni euh, euh, transport Ah, ak yenn yenn point stratégique kenn du ko politiser dundu doomu aadama la te dañ ko war a respecter. Mhm. ñu génnee question politique bii nag wë béy wéy na mbuus moom gouvernement bi fi nekk li wolof di wax béy wéy na mbuus xam nga lu tax lañ fi wax amul ci secteur bi loo foo xamante ne waxuñu fa. Mhm. dafa amul benn secteur rek. bu ñu épargné woon ca wax ja moo tax fi ñu toll nii foog naa ne ñoom tom ñii di war a nekk waxkat nar nañoo sonn ndax fii ba 2024 lépp secteur bu ñu yëkkati rek mën nga leen ciy génneel ñoom ñi fi nekkoon tey ñoom ñi fi nekk tey ci gouvernement bi nga génnee leen ci lañ ci waxoon démb donc euh, euh, bu ñuy bañ wax ñoom dinañ sonn parce que dañoo wax ci lépp bàyyiwuñu dara. lépp ci lañ wax bàyyiwuñu dara ñii tamit su nekkee dañoo bëgg a teg rek li nga xamante ne moom lañ wax nar nañoo sonn ndaxte amul lenn lu ñuy épargner lépp loo xamante ne rek waroon nañ ko romb sax naxasaale ko ñi fi nekk tey wax nañ ci donc ñoom it faw ñuy rappeler donc ñoom xam naa seen opposition dina yomb ndax vaar yi rek la ñuy teg comme niñ koy defee. waaye li mën di am nañu respecter encore une fois bakkanu doomu aadama yi chauffeur yi nañu am yar ak teggin ñu bàyyi seen indiscipline bi ñu nekkee. Mm-hmm. booy dawal nga sonn nga bàyyi ñuy ut ci bus yi ay second bu ñu sonnee keneen ñëw ñu xam ne yebuñu ay xar yeguñu ay ginaar ay nit ki noppam la ñu yeb mm-hmm. ah te ñu ñaanal leen yàlla xaare leen àjjana te El Malick nag man de du ma wax mu démissionné ndax yàlla mooy rey bakkan waaye dañ ko ne mu génn mu jàkkaarloog askan wi li ci war aussi mu def ko ci parce que moo njëkkoon taxaw ne ma Mansour Faye na na na na démissionné parce que moo rey nit yi ayca mi ngi noonu seen i ah, kàddu di ah, nguur euh, Adama euh, situation bi di euh, gën di empiré wu ndax récemment lañ fi dégg accident ca Ndoloma ji la fa faatu ci ay nit bari na tey encore une fois ñu signalé ñu beneen accident boo xamante ne ni itam la fa faatu ci ay nit bari na même bu dee benn la sax bari na waxatuma la ak nag loo xamante ne ni dañu koy compter lan mooy sa jàngat. di leen ñaanal yàlla suñu borom xaare na trop di wax ni rek man comme li ma doon wax démb tey accident cyclo bi mu amee ñu bëri di attaquer le président Macky Sall. Mhm. je pense am na benn poste bu ma defoon. ni am na ci yoo xamante ni pour man ça ne pas ñu koy ñu koy politiser. te la ma nangul woon démb duma ko nangu tey. te accident boobu ba mu doon am le président Macky Sall mi ngi gërëm toog yëgul tinul mhm. comprendre nga xamuñu ban. acte moo tax accident boobu am ñu jël lépp teg ko ci ndoddam te accident bi bu amaatee ñu bëgg a tegaat ci ndodd ki nga xamante ne moom mooy la président Bassirou Diomaye fay wala teg ko ci euh, ndodd ki nga xamante ne moom mooy euh, moom euh, bi nga xamante ne moom mooy yor wàllum transport mhm. loolu mooy chauffeur yi daf leen lu leen neex mhm. amul dara lu leen ciy mën a fekk parce que lépp ñi autorités yi ñoom ñoo koy gàddu je pense que dañu war a attaquer ñi nga xamante ñoom ñoo indi mbirim ba pare balaa ñuy ñëw ci ñi nga xamante ñoom ñoo autorités yi autorités yi ci lan la ñëw ñoom bu dee télé bi dafa nekkul ci état baax dañuy interpeller autorités yi ñu defar ay télé yoo xamante day répondre aux am loo yi pour visite yooyu noonu ñu daal koy respecter bu dee tamit oto yi dañoo war visite te bu demee visite dañuy téye oto bi mu yëkkati dara jox ko kooku la faute à qui moy policier bi nga xamante mom mo taxaw ci talibi pour mon lolu amul luñ ci interpellé. mais mais avant avant avant policier yi Adama di nga ci gis oto yoo xamante ne dañuy dem def li di visite technique. Mhm. mais bo len gisee da ngay xam li carrément auto la bo xam warul am visite technique. exactement mais dañu koy am mhm. dañuy nekk ci kaw talibi bi di daw ça revient à dire que les responsabilités sont partagées. exactement voilà les responsabilités sont partagées il faut ku nekk ñu jël li nga xamante mom la ci mom ñu jox autorité bi lam ci mom nañ ko ci jox moy na defar ay tali yu baax. auto mm. buñu ñu gis moo xam ne oto bii nii nekkul oto boo xamante bu jaar yoon la nañ ko jël ñu téye ko mu baña daw comprendre nga je pense que autorité bi fa la mëna yam mais li ci dess moy ki nga xamanteni mom moom dawal mom moo mom moom amé par exemple da ngay gis ay bus yo xamanteni da ngay gis ben ligne par exemple buma buma bu ma leen ñemee 54 54 par exemple ben 54 bi di daw mhm. benen 54 bu dawee benen 54 bi ñom ñaar kenn du bëgg sa morom raw la dañuy rawante ci tali bi mhm. kii di double fi ki di double fi après ñu mbëkkante ñu daal après loolu lan mo ci yoonu euh, président Bassirou Diomaye fay mhm. lan mo ci yoonu El malik donc loolu dañ koy jël ñu jox ko teg ko ci ndod ñi nga xamanteni ñom ñoy transporteur yi limay waxat waxaat encore encore une fois moi il faut ñu ànd ak yar ak teggin ci li nga xamante mom mom la la ñuy amal ci kaw télé bi ñu xamni ni yabuñu yabuñu ay xar yabuñu ay même xar sax boko yewé war nga ko sam waxuma laak nak nit mm-hmm. waxuma laak nit benn nit bu dee rek mu ngi melni aduna mom mom mom mo dé tay ay ay ay centaine de des milliers de personnes wala des dizaines de personnes mm-hmm. di di di dé ci benn accident nek na lo xamante lu déplorable la mais limay waxat encore une fois gis nga nit boy leble da ngay leble lu bax nit boy leble da ngay leble lu bax parce que tay nit ñi buñu ñu leen toppee ci nañu daan doxalé lu ñëw rek dañ naan ñoom la parce que ci jamono ci nguuru Macky Sall da ngay gis ku yeewu amul lu mu nekkee xëyul gontul deful dara amul lu mu nekkee mu ne nguuru Macky Sall bi ni Macky Sall liggéeyul te moom mi ngi toog deful dara loo xamante tey moom moo koy mën a permettre mu am fukki dërëm wala cent francs bu mu ndekkee mu jël lépp teg ko ci ndoddu Macky Sall noonu lañ doxalee mais damay convaincre encore une fois fi nekk tey ñu bañ leen topp ci mbir moomu parce que buñ leen ci toppee amul dara loo xamante mun nañ ko mun nañ ko apporter encore une il faut que chauffeur yi ñu ànd ak prudence ci télé bi li nga xamante Sénégal yàlla xarewaat encore une fois ñi nga xamante ne ñoom ñoo génn àdduna ci euh, accident bi aljana ñuy masawaat encore une fois ñi nga xamante ne ni euh, ñoom ñoo ci euh, lorule seen i mbokk ak seen i jegeñaale di wax ne kenn ku ci nekk rek responsabilité bi nga xamante ne nii moom nga ci am na ko matale ba mu mat sëkk ndax lu ni mel nag mi ngi bëgg a bari ci réew mi waxtu wi xoj nañu waaye mënuñoo yëkkati jotaay bi nag te souhaité wuñu joyeux anniversaire ki nga xamante ne moo di euh, sunu euh, sœur t'engala Tengela Ba euh, mon xaar Tengela Ba ñu ngi koy souhaiter un très joyeux anniversaire di ko ñaanal rek yalla defal ko jàmm wér-gu-yaram ak guddu fan lepp lo ni mi ngi koy entreprendre ci ay projet yalla defal ko ci ndam Fatim ma bàyyi nga souhaiter joyeux anniversaire. Wa, joyeux anniversaire à hein, la grande sœur dundal rek yow lañ lay wax un très joyeux anniversaire à comme niko ana tous les projets seraient réalise incha allah yàlla may la jàmm ak xéwal ak sutura bàyyi la ak famille bi ak lépp li ngay yootu rek yàlla defal la ko ci barke Seydina Mohamed mm-hmm. ah, ah, ah, ah loolu la la waa diaspora di <laughs> di wax encore une fois un très joyeux anniversaire et une bonne journée d'anniversaire aussi. ayca kontaan nañu ci moom xaax te nga ba mm-hmm. ñu euh, rek fas yéene euh, yëkkati euh, jotaay bi tom waxtu wi xooj nañu bëggoon nañu yëf yi gën yaatu ñu waxtaan ci yeneen. ñi ponk sax mais comme euh, dañu tënk rek ci heure euh, mënuñu ko mënuñu ko romb ñu amoon vraiment waaw 30 <laughs> minutes moom mënoon cee développé lépp ah mais tom tom eh, yow def nga fi lu ëpp 30 minutes yi ah,